gaz yi faral di kalaate ci kër yi tiital nañu bari moo tax war nañoo xoolaat bu baax niñ koy jëfandikoo. gaz moom wóorul moom ko boo ko yoree sa kër da nga war a am sécurité waxtuma kër yi léegi dañu yor ay xale te xale yi moom dañoo sob bu ñu nekkee ci kër yi boo leen bàyyiwulee xel rek ñu def loo xamante ne lii ah yow defu bàyyiwoo si woon xel waaw. dafa nekk danger même boo ko tëjee sax war nga jékki-jékki di suivre xale yi bu baax man damay gis ay jaboot yoo xam ne dañuy jël sa gaz tëj ko seen biir kër seen biir néeg bu ko tëjee tëj ko caabi fanaanoo sa gaz si biir néeg xam nga loolu moo gën a nekk danger man gaz moom duma ko fanaanoo sama biir néeg gaz moom si biti sa waañ wa te bàyyi si xel sax moo gën a wóor. Euh, sécurité moom dafa war am avant tout euh, bàyyi ma jëkk si bâtiment parce que yëngu si bâtiment. parce que li waral léegi bâtiment yi di daanu lu bari euh, gars yi dundul jox yi fi a xam xam nga ñun bu jëkkoon bi ñuy jàng maçon dañuy am ferreur am coffreur am maçon am lépp luy am mais léegi xale yi léegi dañ bëgg a jël lëpp da nga bëgg yaay coffreur yaay ferrailleur yaay tabax bâtiment bu waree duré 15 jours à 20 jours nga décoffrer mi ñoom 14 euh, jours rek dañuy commencé décoffrer pour xaalis bu gaaw léegi nag boroom kër gi nag du ouvrier doo xam nu mu demee ba tey gaaw a daanu te matière léegi bi baaxul bu jëkkoon ciment ba jëkk bi moo gën a baax ciment bi léegi bi loo gis moo gën a baax léegi moo waral léegi ne du am si suivi moo tax léegi bâtiment boo gisee bâtiment xam boo amee ñaari at rek commencé fissure ñu koy jiiñ nag ñii leex leex leex leex or que liggéeykat yi la maçon yi ñoo qualifié wul boo liggéeyee ñaari ñetti rek ñu fay sa patron nga gis yooyu nga yaakaar ne kii am na million nga beru buñ beroo nag moo waral kër yi la daanu ñaari bu mooy côté sécurité ma je travaille à la mairie damay dugg si marché bi mais dangay ñëw pour jaay xaal bëgg a tegal foofu di togg añ te a marché du pour jaay du pour togga dañ fay ñëw foofu dafa toggale seen añ si côté yi am na si marché Ngor bi ñoo fii ñaari yoon ñetti yoon di leen tere dina am marché foo xamante ne lieu de public la ñëpp dañ fiy defee amuñu droit di fa togga togga si restaurant yi lañ ngeen dem añi ñëwaat fi mu ne nii sécurité bi sécurité moo la fépp foo mënta gis si nit ñi la dëgg bi fi mu nekkoon la ne addina fi mu nekkoon la ne nit ñoo changé nit ñi ñoo nekkatul ay nit dañuy bëgg jël ñun plan côté mala yi di ko dundee ragalante duñ waxante dëgg sécurité moo ñu yor xam nit aussi bu ñuy wax toujours nañu waxante dëgg te yàlla tax. waa ji jàpp na ni ñenn si jigéen ñi tayal gi la ñu war a moytu. waaw gaz yi nuyu boson bi tëree baaxul xam nga tamit aussi suñu yaay yàgg nañu toog si gaz mais aussi tamit bu fekkee ne booy taal gaz gaz dafa sensible. Euh, gaz boo ko fayul sax boo étincelle lampe bi sax mën na mën na mën na taal kër gi c'est dangereux moo tax lépp loo gis dañ ko war a saytu saytu dafa baax si kër kër da nga am mooy li nga wax mooy am sécurité sécurité mooy loo def defar doucement lentement boo taalee bu pare ngay xool yëpp ndax tëju na ndax lii lii na na nga saytu mais bàyyi xale bi naka ndax fay nga gaz bi tëdd fële di jaay ay grande dame comme yéen ni ngeen koy defee ni xam nga ça parce que ñaali mi moom war a fayal seen bopp dañuy yónni moom moom suma rakk ji mu ngi fecce men moom lay def dañu war a dañu alkool ñu dem defal ko seen bopp dañuy yónni seen doom diwoo fayal ma lii diwoo fayal ma gi la war a bàyyi te dem di yeggal seen bopp parce que seen i bàyyi takkuñu seen doom seen i yaay lañ takka ab sey da nga matal waaw leneen lu garaaw mooy ñi fanaan ak seeni gaas gaz lu nekk xaj na si déggoo li ma la wax nday si bàyyi xel daal ñun jigéen ñi surtout ñun jigéen ñi parce que góor ñi moom duñ fi nekk yow yow jigéen yow yaa yow yaa des ah jaboot gi yow yaa war a bàyyi xel si ñoom bu baax waaw parce que xale xamul dara waaw parce que danger mën na dal si kaw mag mën na dal si kaw xale waaw ñu bàyyi xel daal ñu maytu bu baax waaw loolu daal laay ñaan jaboot yëpp. waaw aussi matière bi aussi tamit euh, xam nga nit ñi nga jéggal ma rek faral ma gouvernement bi. mais dañu tàmm loo xamante ne lu ñëw ñu noo gouvernement bi gouvernement bi am na loo xamante ne du gouvernement bi nit ñi la du nit nit ñi ñooy def loolu ni ma la ko si côté maçon yi noonu la amee si côté électricien ñoom ñëpp gars yi dañ jàngatul métier mi cent pour cent boo bëggee sa batiment foo xamante ne da nga fay dugal say doom sécurité bi danga koy jox ko ko man nga saytu ko mu am koo suivre sa bâtiment boo dugg si côté électricité bi nga jox ko koo xamante ne électricien vrai la mais gune yi nga xamante ne dañu génn barke démb rek nga bëgg leen jox ñu installé bâtiment c' est dangereux ñaari fii la mën na laalante mu pokku dañuy waxante dëgg dëgg gi ñun ñoo si toog de yàlla xam na dëgg yi ñoo toog mais dëgg gaa ngi suñu kanam ñoo si jomm suñu bët bëgg lu yomb rek kii dafa nekk électricien jàng ko ay at génn ko ne war si jariñ doomam war si jariñ jabaram war si jabaram waa këram nga ñëw di seet mu jox la devis nga ne dafa cher jël koo xamante ne démb la génn dafa ñun ñoo ñun ñoo moo tax il faut ñu def sécurité bi nous d' abord gouvernement bi deful dara yàlla deful dara kat dee ñu naa yàlla yàlla deful dara ñoo ko saytu gouvernement bi deful dara nañu waxante dëgg yàlla loolu. gaz bi kalaate aljuma bi weesu fële ca Derklé moo ne ci làmmiñ yëpp fi mu ne nii bilan bi sax yokk na gannaaw ba Sagar Diouf Janko Diagne Serigne Saliou Diouf ak Khadim Diagne keneen ñàkk na bakkanam muy juróom.